mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat euh, di leen euh, gërëm bu baax euh, ànd ak yéen ci seen seen la solution TV wala solution info TV seen 30 minutes chrono ñu ànd ak yéen fas yéene waxtaan ci actualité bi ginnaaw bën gërëmee El Hadj Modou Diouf Abdou Tob ak Ablaye Fall mi ngi jàppale ci régie bi ñu dikk ci waxtaan wi ci diiru ko fanweeri minute nu ngi koy defee alxamis june ngeen ci ànd ak Omar Bun Xatab Gueye ñu door ko ak actualité bi doon une actualité très fournie jëm ci assemblée nationale ak tas gi war a tax ñu tas ko loolu dinañ ci dikk dikk ci dogalu jomaay ci dindi Aminata Mbengue Ndiaye ak Abdoulaye Daouda jàll ndaxte fan yi ñu weesu sunu chronique bu mujj ñi ngi ko doon réclamer pour ñu jëlee leen fa doon une décision boo xam ne décision politique la war a doon ginnaaw attitude waa assemblée nationale ak Macky tas gi mu tas bennoo ak livre am bin ko bindal li ma naan ko bindal livre mu tontoo leen lii di ab lettre loolu nag doon loo xam ne dafa laaj jàngat ci jamono bi assemblée nationale di daje pour ñu dindi o conseil ak. conseil économique social environnemental jamono jooju Macky Sall yónnee leen ab leetar na leen tas na Benno Bokk Yaakaar dafa bëgg beneen entité di làng gën a yaatu ci wàllu politique yooyu yëpp daje la lañ ci mën a jàngee parce que waa Benno lan doon def ca assemblée nationale Macky lañ ko doon defal ndaxte ku mel na Farba ngoom nekkoon fi un porté disparu ban koy wantit di ko wër jour boobu feeñ na te far ba fu mu feeñ rek wala mu teew Macky moo teew loolu jural bennoo la bëggoon mu am ko mooy tas ñu HCCT tasuñu au conseil ci jamono boobu Macky sàll génnee lettre na tas na bennoo loolu jaaxalu leen est-ce que c'est pas paradoxal ñett yi daje ñu bind livre ci Macky Sall di wane ay réalisation ginnaaw ba Ousmane ko waxee ni dañ fi fekk un pays ruiné boo xam ne dara nekku fi ñu tontu ci réalisation président Macky Macky Sall tas ci jamono ji waa bennoo soxloo majorité à l'Assemblée nationale pour bañ a wote suppression au conseil ak conseil économique jàngat bu njëkk bi ñu ciy def mooy Macky moom ak gaayam yi dafa bëgg a joxe impression pour wane ni la xew ca assemblée nationale sama yoon nekku ci te pourtant lépp moo ko tëgg moom moo ko dox moom moo ko wax moo fa yebal Farba Ngom du ñàkk ni sax moo neexal député Benno yi parce que loolu lan tàmm bu dara mësaana xew ñu woo leen ci assemblée nationale yëkkati ay enveloppe jox leen neexal leen pour ñuy wote ay projet de loi mais Macky mi fi nekkoon démb ba tey ji moo fi ne ndax yor na xaalis yor na ay fonds te ma ngay liggéeyal France teg ci fonds politique yi am na ñu ne sax la ca desoon lu bari yóbbu na ko am na ñu wax lool. tey waa bennoo yi génn fexe ba Macky la mu bëgg ñu defal ko ko mais daf mel na yi bëggul leen ko defal mooy li ngeen def sama yoon nekku ci livre ban ko bindal mu bëgg wane ni livre am bi yoonam nekku ci maanaam yi dafa bëgg a joxe impression ni nekkul ci ginnaaw bennoo li ñuy def yëguma ko alors que yëg na lépp moo togg lépp moo tëgg lépp moo dox lépp moo wax lépp parce que impression bi muy bañ nit ñi di ko xalaat moom Macky Sall impression boobu moom mënul tax mënul teen nit ñi xalaat ko comment un ancien président de la république dem di liggéeyal réew mu mel na France di leen doxal yónnent loolu question la bu ñuy am ñi indi naan Macky sàll moomu lu waral muy liggéeyal France ba pare nekkul Sénégal dem dëkki Maroc yor fi ab parti politique di ko doxal wala ab coalition politique loolu tax intelligence politique Macky Sall loolu il faut que gars yi naw ko mooy dafa bëgg a joxe impression ni li Benno di def du moom te lool li koy firndeel mooy am na benn jamono ab Abdou mbaw ne dañuy dugal benn proposition de loi wala projet de loi pour wax ni lii di assemblée nationale dañuy fexe ba exécutif bi le président de la république après deux ans du ko mënati tas loolu ñu Abdou Mbow tegoon na ko fi mais bi mu ko waxee ci saasi Macky Sall xam ne li Abdou mbaw mi di def njombe la te bëggul ñu ne moo nekk ci ginnaaw Abdou mbaw le journal laas bu mu juumul dafa bind te journal laas journal bu jege maki la loolu na ko ñépp xam ne Macky dafa woo Abdou Mbow na ko seen yooyu bu leen mu ci tudd ba maam Biram wàccax di wax ni yamul ci woo leen bu ma tudd waa da leen a daggal dagal buñ koy wax c'est péjoratif maanaam leneen la léegi Macky Sall affaire nante yooyu muy jaay sénégalais yi comme si ni Sénégal di doxe yoonam nekku ci loxoom nekku ci léegi daal gars yi ñoom ñooy def li ñuy def la ñuy def ñoom ab alors que gars yi sañu ñoo def lu Macky Sall yëgul la Mimi turee doon wax naan Macky siège APR bi pour ñu ibbi ko sax day joxe autorisation léegi nag Macky xamoon na ni au conseil day tas HCCT day tas Macky xamoon na ko moo tax mu njëkkantu bi ñuy woote ne nan tas bennoo loolu bu ko defee mooy day dégager ay responsabilités am ci bennoo maki dafa muus day dégager ay responsabilités am ci bennoo wax nit ñi ni bennoo daal nekkatul sama kilifteef li ñuy def ak li ko wax man sama yoon nekkatu ci tey ji lépp luñ defati ñoom la alors ko mu nekk seen ginnaaw mais comme taalibe Macky Avel la Macky Avel la parce que Macky maanaam bu ñu dee wax taalibe dëgg bu Macky Avel Macky Sall la maanaam les pratiques machiavéliques ci wàllu politique Macky da koy utiliser xanaa Macky Avel dafa bind lu baax bind lu bon ci politique mais Macky côté yu bon yëpp da koy utiliser moom Macky Sall sa côté boobu da cee ay nan lañ reyee sa adversaire nan lañ wàññee doole sa ad kii nan lañ koy gérer façon politique am dafa garaaw dafa mel ne ku sànni bennoo ba pare mais téye leen parce que bu dee ni danoo tas HCCT kan moo ko jiitee di Aminata Mbengue Ndiaye Aminata Mbengue Ndiaye moo ko jiitee amitam Mbengue njaay bennoo la bokk léegi bu benn continuer ni am ñu tas ACCT alors que ACCT benn vache laitière la woon maanaam benn nagu rattukaay pour alimenter la base politique du parti socialiste Tanor a ko yoroon Aminata Mbengue moo ko doonu c'est juste pour gérer le parti socialiste léegi mën na am Macky soxlaatul parti socialiste lam leen doon doye mënatul ne parti socialiste mënatu ko jariñ lu bari comme bëggul nag vache laitière bi di HCCT ñu tas ko léegi buñ ko tasee wala ñu jëlee fa Aminata Mbengue jaay dun amati xaalis budget de fonctionnement ba du doxati Macky bëggul waa PS di ñëw di wéeru ci moom Macky daf mën politique mooy amalatul ma njariñ politiquement parce que buñ ma amaloon njariñ dañuy fexe ba Benno continuer di nekk au pouvoir mais bennoo jóge na fi léegi ñoom ñu continuer di wéeru ci man li ma yoroon ci xaalis war ci yor APR war ci yor samay nit ak sama njaboot pour mën a doxal parce que opposition dafa métti parce que opposition da ngay génnee mais doo dugal alors que fii bu dee nii da nga nekk au pouvoir les fonds politiques teg ci loolu laaj ñu jox la ko parce que yaa yor décret yi kenn du la ñeme Macky nag bañ di yëkkati alalam di ko def ci ñu ko amalatul njariñ tax na mu ne dafa tas bennoo man loolu laa jàpp mooy mënatul kon ne di alimenter ñoo xam ne amuluñ ko benn njariñ mënuñu ko apporter rien politiquement ci jamono boo xam ne Macky avant mi bàyyi gars yi gars yi bàyyi nañ ko. yaa ngi dégg tractation entre le parti socialiste bu Aminata Mbengue Ndiaye ak taxawu Dakar wala taxawu Sénégal bu Khalifa Sall mooy wane ni mag Macky bàyyiwul gars yi mais xam na ni gaa yi ci tànk wor ko ak bàyyi ko lan nekkoon Macky ne balaa ñu maa sànni du ma wor ma wor leen. li wolof yi naan balaa nga may tuuri ca mbalit ma fekk ma tëdd rëbës am na ñoo xam jikko boom lañ yor balaa nga leen di dàq ñu dàq seen bopp ñoom dem uti leneen day tax dàq bi du mett comme nag li naan c'est une histoire d'amour je t'aime moi non plus Macky sànni leen parce que xam ne fi gars yi jëm mi ngi dégg tamit ñu naan waa parti socialiste ñi ngi waxtaan ak Amadou Ba te Amadou Ba fekk fan nee nañ mën na génn. génn boobu mi génn lan lay annoncé Macky est yëgul ni waa PS fekki nan Amadou Ba Macky est-ce que yëgul loolu mu tas Benno balaa gars yi di ko bàyyi mu bàyyi leen koo koy Macky Sall taalibe Macky Avel la day politique day politique ba dugg boîte vocale la xew ci assemblée la xew fépp mooma mais day mel du moom parce que sóoroon na ni parce que yoroon na état tax xam na état nag sóoroon na ni ñii di HCCT ak au conseil économique social environnemental sóoroon na ni même bu leen tasul ci assemblée nationale même bu leen tasul ci assemblée nationale président yi da leen di dàq comme ni ko Diomaye dafay démb dàq Abdoulaye Daouda jàll dàq Aminata Mbengue Ndiaye moom xamoon na loolu léegi nag balaa ñu koy rendi mu tër boppam dem toog fële yi ci jàngat man gis naa ni looloo tax mu indi li mu indi ci jamono joo xam ne gaay mi dañ koy kañ bindal ko livre noir walla euh, euh, le le lapsus est est révélateur livre noir laa wax ne dama juum mais le lapsus révélateur mooy livre noir wala livre blanc mais livre noir la gën a jekk livre noir la gën a jekk wala livre rouge wala leneen parce que ñii duñu bëgg a jaay lee réalisation de Macky Sall way mun na nangu les réalisations de Macky léegi à quel coût ñaata la jar il faut l'accepter terre BRT leneen ak leneen jam ñaajoo ceci ou cela yooyu yëpp c'est bien mais le train qui arrive à l'heure ne nous intéresse pas kan mooy Macky Sall Macky Sall mooy ki jot réew mi en 2012 en 2012 jot ko ci wàllu traque de biens mal acquis la njëkkee réew mi yëpp tàccu ne c'est demande sociale Macky Sall Karim Wade rek la ci jàpp tey bu njaay jeex na sur les vingt cinq le procureur Alioune ndaw mu yoroon dossier bi moo ñu wax de moo nañu kii di président Macky Sall ci mbiru traque des biens mal acquis bi bi ñëwee proposé ko ay nit ñu war a woo li mu wax Antoine Diome mooy fexeel ba gars yi ñu war a woo rek daal ñu xoxotal leen politiquement ngir ñu mën a ñëw mais jubluwuma ci jàpp leen maanaam moom bi muy def. Euh, reddition des comptes règlement de compte moom da ko doon utiliser politiquement pour récupérer les barons du PDS koo koy Macky Sall ñu jige ci mu dugg ci mbiri Khalifa Ababacar Sall ci mbiri caisse d'avance mu utiliser ko politiquement moom ak waa parti socialiste pour écraser Khalifa Ababacar Sall te loolu lépp li mu ci jublu woon mooy en 2019 comme Macky Sall ragal la ragal la moo tax mu soxor dafa bëggoon en 2019 Khalifa Sall du nekk candidat Karim Wade du nekk candidat mu fexe ba ecarte leen Macky Sall moomu ginnaaw gi la dugg ci mbiri Ousmane Sonko ci mbir yu ñàkk fayda yoo xam ne affaire fait divers la un état sérieux sax du ci dugg parce que comme Ousmane am na 15 pour cent à l' élection présidentielle de 2019 léegi mu ne kii c'est un candidat sérieux pour 2024 léegi il faut l'éliminer avant 2024 mbiri aji Sarr jaar fi mbiri aji Sarr jaar fi mbiri ka xale yi ñu rey presque quatre-vingts ay milliers de jeunes dugg ci kaso bi mu xëy def ab loi si ànd ci ak député tapaleem yi ñu dimbali ko ci ba tey réew mi tey ji nekk fi niveau bi mu nekk dans l'histoire politique di Sénégal Macky Sall mooy président bi njëkk am fit xaar bal jour bi ñu war a camp commencer à vingt quatre heures ñu war a commencer campagne électorale le président Macky Sall reporter élection présidentielle loolu moo ko fi def ay nit dee ci ay nit dee ci ñàkk ci seen lépp pour bakkanam ak bëgg-bëggam pour bañ Ousmane Sonko ak Diomaye bañ a bokk ci ay élection jaraloon na ko ay nit dee lu kooku mooy Macky Sall bi loolu amee ba ñëpp foog ni fa lay yem. mu jàpp ay date élection jàppoon na ko juin Macky Sall tey bu doon coobareem ak li askan wi jëkk ak fulla gi Ousmane Sonko ak ngor gi mu wane ba tey ji Ousmane Macky sàll mi ngi fi demul élection wala le 2 septembre passé bu mu juumul ci lañ doon dem élection loolu daal le vrai visage de président Macky Sall il faut que ñu wan leen moom mooy kan mooy waa ji demoon Charlie Hebdo ñu xas yonent bi mu dem di tàcc ñoo ko xas c'est ça Macky Sall Macky Sall mooy ki ñeme jàkkaarlu peuple am na leen le bilan immatériel intéressé wu ma maanaam le bilan immatériel intéressé wu ma yoonam nekku ci maanaam moom mu osé jàkkaarloog sénégalais yi wax leen loolu amul discours à la nation bu mu daan def te du tëkkuwaa réew mi dégluwul kilifa diine dégluwul kilifa aada dégluwul kenn bakkanam ak ay bëgg-bëggam rek la jiitaloon ci lépp lu mu mën a doon kooku mooy le président de la république Macky Sall bi waa Benno yi bëgguñu jaay ni moo fi def li moo fi def li moo fi def moo ko fi def waaye tam moo fi def leneen ci nguuru Macky leen gis de jeunes di jël géej gi di dem du ko yëgal yaramam du leen jaale du def journée maanaam du def deuil national du def dara li may wax ni ci Pape Alé Niang laa ko nangoo neexul woon wax ci jamono may tey ji neex naa wax mooy Pape Alé dafa ne bi mars 2021 bi booy deewee bi maître Sidiki ne dañuy def commission d'enquête dégg naa bi ñu demee jébbal rapport bi président Macky daf na leen rapport bi sama yoon nekku ci parce que bu bu ma leen masowoo maanaam boo gisee xale yi dem Macky daaw leen ma masow kon ne di def li ñuy def maanaam moom na xale yi di dee pour moom mu am lu mu bëgg maanaam moom pour mu am lu mu bëgg na ñëpp dee mu nekku ci maanaam loolu tax mbiri xale yi daan dee daawul gën di leen ma masow daawul gën di ci wax dara kooku mooy le président de la république Macky gëmul loi gëmul droit gëmul dara li mu gëm mooy li mu bëgg ak fi mu jëm fu la jooju moom amoon na ko maanaam lépp lu mu bëgg maanaam lépp lu bëtam tege fitam du ko xañ bu ko jaralee sénégalais yëpp loru ci jaraloon na ko le président de la mag ceeb yokk na mburu yokk na Macky Sall arrogance am eggoon na ki ñu ni ko non autoroute à péage bi moom Mansour Faye autoroute à bi dafa dafa seer mu ne non ku ku mënul jaar autoroute à péage jamal jaar géttu bay quoi mooy route nationale bi ku amul njëgu péage jaaril na moom noonu la ko réglé quoi nekku fi di xalaat quoi te arrogance boobu dafa demoon ba da ci wàll ay nitam fii la fi 450 jeunes dee ci géej gi Antoine Diome bi mu njëkkee nekk ministre de l'intérieur xam lu mu wax je ne venu pour compter des morts moom Antoine looloo man man ñi dee ñëw ma pour di leen compter quoi maanaam ñoom sénégalais yi doon dee ay weñ yi dee la leen jàppe woon intimider les jeunes papito kara ba xale yi xaratu xajatun ci dëkk bi di gën di dee ci géej gi dem dama déglu Abdoul Mbaw moom day joxe impression ni dafa intelligent mais boo koy seetlu rien qu'en le voyant parler tu sais que boo koy seetlu day jàpp lu fa muus mais des naa muus dama gis mu naan nguuru Sonko ak Diomaye ban fi nekk ak tey ji ban fi nekk ak tey ji mais Abdou mbaw bu dee wax da ngay foog ne Macky Sall lay waxal parce que lépp lu mu doon tuddal nguur gi ci wàllu chômage ci wàllu Jakarta xale yi jël géej gi réew mu metti réew mu jafe nit ñiy ñàkk seen liggéey nit ñi dee agression yeeg insécurité bi mais loolu lépp Macky la moom bi muy wax Macky Sall lay waxal te yëgu ko maanaam mi ngi jàkkaarloog Pape Ngagne di wax mais lépp lu muy wax ci mauvaise gouvernance da ngay gis ñu jël affaire wu non ñi ñi ñoo ñi ñoo ña ñi ñoo bëri caaxaan ñu jël affaire wu ONAS nan non yoro ñu alal réew mi il faut ñu leeral ko il faut que ñu leeral alal ko ñoom junni milliards Covid yi dañ ko jox ñu ndekkee ko junni milliards Covid yi dañ leen ko jox ñu ndekkee ko ñu am fitu ñoom jàkkaarloog sénégalais yi nan leen. non affaire ONAS affaire ONAS dem ba le de la justice war a wax ci démb dafa daanu ci piège député à l'Assemblée nationale ñi sàcc alalu réew mi tong-tong alalu réew mi mbiri Prodac mbiri l'ONAS maanaam amul secteur bi nguuru Macky Sall yoon te boo doy na fekk scandale ñoom ñëpp bu leen toppee ci yoon te teg ko ci yoon da leen di tëj wala ñu jàpp leen wala ñu delloo au lieu de parler de ça état bi di ñu bëgg a rey mbiru ONAS ba ay Babacar May Ngaraaf am fitu naan day def pétition ay mars alors que fi ñuy rendee kenn du fa jooy góom ñoom ñu rey waa réew mi yëpp sàcc alal réew mi yëpp du ñu bëgga a rey mbiru ONAS dem ba le ministre de la justice permet jàkkaarloog ñoom du leen leen da nga leen fàttali li ñu defoon da leen di fàttali nga xam nga fois ñun suñu politique yi ñëpp a yem ah. ñu nekk ci pouvoir bi opposition noo jàpp ne ñun am amnésique sénégalais day fàtte li mu reeree sax boo ko laajee dem mu fàtte ko mais bu reer doon doy reeru daaw ya doy fàttali leen ni ñoom seen 12 ans yi li liñ fi def nguur mosu ko fee def ci sàcc alal réew mi ci tooñ waa réew mi ci injustice ñu dem bay bind seen livre blanc bi xamul livre noir naan Macky Sall moo fi indi état de droit mais Macky Sall la gën a toroxal ci nguuram. justice ak FDS force de l'ordre yi la gën a toroxal ci nguuram parce dafa dem ba gëdd gi leen joxoon tax joxuñu leen ko won kon Macky Sall bu mënee def erreur yi c'est normal erreur yi mu def ci nguuram te bu ma doon lim du jeex Macky Sall demoon na ba jàpp ni permettre na lépp boppam mais waa Benno yi nit da daan faatu sax ci réew mi ñuy tàccu di tàccu général Moussa Fall ana makabu fu mu deewee. ana Fulbert Sambou ak Didier Barchi quatre cent cinquante quarante cinq milliards armement yi ci ñoo Abdoulaye Daouda Diallo war nañ ko lijjanti assemblée nationale budget bu fa dugg deux depuis deux ans kenn xoolu ko war nañ ko xoolaat looloo tax HCCT au conseil ak assemblée nationale bu ñu yem ci dàq gars yi mais nan leen audité pour xool nan leen yore woon fonds yi leen dénkoon fan lañ ko doon dugal ak kan lañ ko doon jox. il faut que ñu wax la lool mais Macky sàll bu mënee def erreur yi parce que il est mal accompagné ñi ko li naan maanaam nit ki balaa nga ko xam da ngay xool ñi mu àndal ak ñi mu ñi ko wër. Assemblée nationale bii ñoom Abdoul Mbow di wax te ma jàpp ni le 12 warul egg le 13 war a tas seen ñàkk intelligence politique moo leen yóbbee ñu koy tas ñàkk muus ñàkk yeewu ñoom Abdoul Mbow yi. bi leen indilee loi de finances rectificative li ñu waroon njëkk a def mais danga nga ko waroon wote te xam ne intérêt réew mi la bu doon réew mi rek moo leen ñor au conseil bi ne nan ko tas wala conseil économique social environnemental piège la bu leen jomaay tendre ak Sonko dañ ko waroon wote delloo leen coow li di leen déglu parce que Sonko ak jomaay ñu wax ko ñu bëgg ko man gëm naa ni bu ñu sañoon assemblée bi du tas le 12 parce que bu ñu sañoon ñu wootee budget bi ba jaar parce que bu deen doonoo tas assemblée bi ñu war a gouverner par ordonnance wala ñu jël budget bi weesu 2023 day am conséquence day am ay conséquences ci ni réew mi doxee alors que ñoom ils ont un projet boo xam ne dañ ko war a doxal mais tey jii bu ñu fi bàyyi woon assemblée bi ban egg ci war a wootee budget bi ñu jël le projet bu boobaa le projet bi di tàmbali en 2025 teg ko ci kanam waa bennoo yi xam ne ñoo am majorité est-ce que waa bennoo duñ duñ gàllankoor budget bi waa Benno yi di wax est-ce que duñ gàllankoor budget bi parce que li leen njëkk parce que waa bennoo yi seen ñàkk xel mooy dono intelligent wu di nga des fois même sa noonu sa ennemi da ngay intelligent da ngay muus ci kanamam da ngay xam ne kii sa noon la ki da lay yàqal nga mel ne ku ko ragal fekk da nga koy maytu boo ko jekkee rendi ko Benno xam lu mu waroon def. voté lépp lu nguur gi indi ñu jël comme ni Abdou Diouf defoon ak Lay Wade comme ni Macky defoon ak wadd fexe ba assemblée bi nekk l'assemblée du peuple mais ñu bañ ko politiquer mais Ousmane Sonko da leen a parce que Ousmane li muy def Ousmane Sonko des fois day def loo xam ne ñu bari da naan erreur la fekk moo ko tey usman da lay cokkaas dóor la coup di la déglu. ba muy taxaw ca grand théâtre dara yënguwul ci réew mi mais dafa taxaw yëngal opposition bi parce que boobu presse bi rek ngay dégg ñuy wax mais ci la yenn opposants yi commencé génn let ñu xam nag les vrais visages ñan ñoo nekk ci ginnaaw presse bi mu régler problème mu presse bi teg fële tey dugal na ay coup ci wàllu déclaration de politique générale mais boo xoolee réponse bi ko gars yi di jox politiquement du du baax parce que politique action la ak réaction bu nangoo nekk à chaque fois ci réaction mais da ngay nekk ci action Ousmane Sonko nekk temps yi passé lu tax ma xawoon leen mere danoo nekkoon ci réaction alors que état du nekk ci réaction état day dóor coup bàyyi gars yi fayu mais bu mu nangu di njëkk a jël coup parce que boo njëkkee jël coup boo njëkkee jël coup am na nu coup bi dalee rek doo sikki loolu tax boo xoolee Ousmane Sonko ces dernier temps moo ñëw joxe coup joxe coup gars yi réagir mais gars yi réaction bi ñuy réagir duñ réagiree xel. xool ni réagiré boo xoolee ñoom Abdou Mbow bërët rek ñu bloqué dindi bi nu waroon a dindi au conseil ak ACTT bërët rek ñu noon motion de censure alors que motion de censure arme la mais c'est pas une arme conventionnelle c'est une arme non conventionnelle maanaam arme la boo xam ne mi ngi mel ne bombe atomique doole la booy téye pour xeex mais doo ko gaaw a génnee mais Abdou Mbow démb nee na li xew ci réew mi ci diggante yi mais yow bi nee bëreet gouvernement Sonko taxaw ak Diomaye la la fi njëkk a wax coowal motion de censure ci assemblée boo xam ne njubadi kon maanaam njubadi ci ñoom la njëkkee ci ñoom la mujjee danoo dëng ni garabu yoo assemblée bi Abdoul Mbaw di wax nan la lay falee deux ans taxaw taxawala haute cour de justice bi nu war a arrêter les ministres loolu njublang la loolu kenn du ko wax alors que bu la falee ba installé la un mois après war nga taxawal haute cour de justice mais ñoom defuñu ko pour protéger njub la ñuy nekk ci seen biir mais deux ans haute cour de justice amul assemblée nationale pour ñu àtte ministre yeeg ñoom seen mais loolu ba loolu de loolu mooy assemblée boo xam ne dafa nekk au service du peuple règlement intérieur bi ñu def ci lu leen ne assemblée boo xam ne moo fi njëkk a taxaw jiiñ waa conseil constitutionnel corruption boo xam ne moo fi njëkk a taxaw. ne dañuy pousse élection présidentielle assemblée boo xam ne dafa dem ba mel ne ab camp militaire xadd gàllay na kii di amaru Mame Diop woo takk der yi Amadou Mame Diop woo takk der yi police gendarmerie ceci ou cela maanaam mu dem ba def ko ab way maanaam moom bu jaaxlee police gens mais Amadou Mame Diop bu jiitu woon Sénégal comme li may wax ñun ñu dugg ci musiba koo xam ne bu jaaxlee li muy njëkk a mooy armée bi. alors que yooyu mooy les derniers recours di nga ngànnaay du ngànnaay yi nga yor yëpp ngay ñëw génnee ko boo meree daf ci am yoo xam ne dañ la ko dénk rek pour nga téye ko mais bu ko xeexee mu c'est comme une bombe atomique dañ koy nappantee rek mais kenn du ko génne ma Amadou Mame Diop mer na rek li mu yor yëpp génne na ko Abdou Mbow mer na rek li mu yor yëpp génne na ko dama dégg nag li seen objectif dama dégg ki wax lu am solo Moussa jaxate moo jiite commission des lois Moussa Diakhaté mu ne démb waaw Macky Sonko li mu indi contre feu la waaye assemblée boo xam ne li mu am ci ay revers maanaam ñoom nekk ima revers xam mooy la mooy ay jël ay jël ay défaite bon maanaam maanaam premier ministre boo xam ne ñoom la personne de Sonko mën a premier ministre boo xam ne li mu am ci ay défaite ba mu nekkee premier ministre ba léegi en cinq mois assemblée bi def na ko lii assemblée bi def na ko lii assemblée bi def na ko lii assemblée bi def na ko lii loolu nag moo indi Ousmane Sonko ne du toog ak ñoom parce que bu ñëwoon ci déclaration de politique générale dañuy ñëw ñu ne nanu politique mais ñoom ñëwuñu pour indi ay argument pour représenter la peuple li ñuy ñëw pour am pour gis laa défaite de Sonko même boo gisee motion de censure bi jubluwuñ ci dara xam na ni buñ ko dindee tey balaa ngoon ñu tegaat ko mais ñoom seen objectif xam mooy lan mooy motion de censure mosu fi am depuis Mamadou Dia léegi def nañ ko Sonko quoi ñoom loolu lañ ciy ut léegi fexe nañ ba HCCT waa gouvernement bi indi nañ lii léegi nañ ko rejeté jabar ju bon nag ak bëñ bi metti te bon ak assemblée bu bon ñoo yam dindi sànni comme ni ko son Sonko waxee foofu la ñuy tëjee le 12 bu jotee. ñii di cëppi cëppi di ay député dinañ tal leneen lu dul motion de censure mooy dëgg ndaxte nag ku xamul saay na ñun la buur dee na ku xamul buur dee na nag ñun la buur nee na nii ah duma ci egg kon di ñaanal ñëpp jàmm di jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp El Hadji Modou Diouf nekkoon ci régie bi Abdou Toob ak Abdoulaye Diallo fàllu di leen ñaanal jàmm Omar bun Xattaab gi ci kàddu gi kon beneen alxamis bu 21 heures jotee ñu àndaat euh, ci solution info TV.